فنويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد للمصطفى auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadil amiin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seetaan suñu internet bi di 24actu ñu ngi leen di nuy bu baax di leen ziyaara di leen nuyoo fii ci tey ci Touba Mosquée ci kër Serigne Thierno Bousso Asta Walo ginnaaw bu ñu nuyoo Cheikh Sidi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te naka noonu di ñuy sëriñ Mbusoobe Buso ba nga xam ne mooy xalifa sëriñ Buso bi ak mboolem njabootu Buso bi yëpp ak mbokk yëpp sëriñ Alxaaji Fadilu Buso xalifa sëriñ Afiya Buso ak mboolem njabootu sëriñ Afiya waaye sëriñ Alxaaji Buso Màggat Ñaŋ xalifa sëriñ Abdu Buso ak sëriñ Afiya Buso xalifa sëriñ Cerno Buso ak mboolem njabootuk sëriñ Abdu Buso Astawaalo ak njabootuk sëriñ Cerno Buso tey jii sëriñ Basiiru Buso moom sëriñ Cerno woo mbokk yëpp nga xam ne ñoom lañ bokkal soxna Asta Walo Dieng tey jii di alxamis ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin 2022 fii ci kër Serigne Thierno Bousso Asta Walo mu ciy fàttaliku sunu maam soxna Asta di koo xam ne nii ci soxna yi nga xam ne soxna su jàmbaare la woon soxna soo xam ne ci tànneef yi xam ne sëriñ Touba woon mu doon soxna soo xam ne soxna Asta Walo Dieng di waajuru Serigne sëriñ Bousso Asta Walo ak Serigne Thierno Bousso ak soxna maam say Bousso mi nga xam ne moo nekk jëriñ joxoon ko sëriñ Assane Bousso mu sëriñ Mbacke Bousso ak soxna maam Bousso Asta mi nga xam ne moom lañ joxoon sëriñ Cheikh Thioro Mbacke muy waajuru sëriñ Cheikh Jooreel ñoom Mbacke yi nekk daaru Mbacke bari kon soxna Asta Walo ñang moomu tey moom la ñu fàttaliku mu nekkoon jàmbaar nekk mag moo xam ne nii yàgg la ak soxna aw Bousso di doomi Malamine Mati Ñang soxna Asta Walo ñang doomi Malamine Mati la Malamine Mati Ñang ku ne xam na ne doomi soxna mati Bousso la moom soxna jaar Malamine mati ak Njóogu mati ñoom ñoo bokk ndey ak baay soxna mati Bousso mii seen waajur moom ak soxna jaara ak Serigne Bousso bi ñoo bokk ndey ak baay kon soxna Sowala ñang moom nga xam ne sët la ci soxna mati Bousso yëkkati woon ko jox ko Serigne Afia Bousso Serigne Afia Bousso aussi di doomi Serigne Bousso bi mu am fa njaboot yi di njaboot di Serigne Abdou Bousso di taawam ak Serigne Thierno Bousso ak soxna Say Bousso ak soxna Maam Bousso Bousso ak seeni njaboot moo tax ñu fii tey ngir fàttaliku soxna su tedd soosu nga xam ne jaamukut yàlla bu mag la woon wax nañ ne docteur la woon ci wàllu baatin di docteur ci saahir ndax soxna Awa Bousso bu mu bari na ci faj moo xam ne nii ku ne xam na ne soxna Awa bi nga xam ne nekk na ci kër Serigne Touba gi moom moo yoroon donge yi daanaka képp ku feebar booba ku ne xam ne docteur yi xew léegi xew buto soxna Awa moo daan defar ay laaxi kuraay di faj ay damm damm yi di faj ay góob di faj lépp waaye nag loolu lépp li fi soxna Awa jugee da ko bàyyi nga xam ne loolu moo ko daan def képp koo xam ne da ngaa feebar wala da ngaa tooy wala nangam moo lay moom dañ koy jël andi ko ci yow mu faj la di la toggal ay laakuraay jël ay xas ak garab yi wala di ko jàmbaan di ko faj di la faj ba mu wér ba ñëpp jàpp woon ne kon docteur la woon ci wàllu saayir nga xam ne fajum saayir moom ci wàllu mat waaye nag nag noonu la feese woon dellu ci wàllu bàtti muy koo xam ne nii ku ragaloon yàlla la li mu doon doon jigéen daq mën a jaamu yàlla lool liggéeyal nag waaye ki nga xam ne moom la ko suñ borom booy loon muy sëñ Afee Buso ci Euh, liggéey bu am solo ci wàllu këram ba suñ borom deftal ko njaboot goo xam ne njaboot gépp barkeel la tey jii tey ku dem ci Daarul Manaan ci a Sëriñ Afia Bousso da nga gis jëf ju yoo xam ne nii njabootu soxna Astawaalo ñoom ñoo ko fa taxawal ci ndigalul seen waajur waaye nag ci digal ñu defal ko a waajur sëriñ Afia Bousso ci taxawaayu sëriñ Thierno Bousso ak ay doomam ku mel ne sëriñ Khadim Bousso yàlla na ko yàlla doole leer ak man sëriñ Thierno Bousso it suñ la suñ borom taw féexale mu liggéeyal waajuram bañ denc ko foofu ci barabu sëriñ Afia kon loolu barke la boo xam ne seen waajur so am asawal moo leen ko kon bu sëriñ Bassirou Bousso tey moom sëriñ Thierno toogee ba suñ borom xëy na sax ñu ngi ko daan fàttaliku saa su ne di ko ñaanal waaye mu koy wooteel bis bu mel nii ngir ñu fàttaliku gën a dolli ñaani boole ko ak mbooleem waajur yi nga xam ne moom la seqaloon loolu lu solo la tey xam ne ni yaakaar nañ ne bisu sàkku ñaan la bis la boo xam ne ni bis ku fi teew am yaakaar ci ne suñu borom dina faj say aaju ndax la borom ngërëm na ngërëmul Serigne Touba ndax moo joxe woon digal ñu jox ko Serigne Afia Bousso maam fa jabar waaye am na ngërëmul Serigne Afia mbokkam la di doomi nijaayam ndax wax nañ naa léegi na soxna Mati Bousso mi nga xam ne mooy maam yi soxna Asta Walo ñoom ak Serigne Bousso bi ñoom ñoo bokk euh, ndey ak baay Serigne Bousso bi di waajuru Serigne Afia Bousso Malamine Mati di waajuru soxna Asta Walo ñoom mu bokk ak ñu bokk ak askanu ñangeen yëpp nag di askanu riis woo xam ne nii ci askanu Bousso bi ak Mbacké ñi ko Serigne Moussa ko waxee rek askanu Mbacké ak Bousso bi ak ñang kenn mosu leen a xam ci ak caddu naka jekk bañuy ba ñuy déparé Fuuta di ñëw ba Jolof ba agsi fii ci Bawal ci jaamu yàlla ak xam-xam ak jàng ak jàngale ñan xamoon kon ci meññiteef boobu la soxna Asta Walo ñan meññ diggante Mbàkke ak Mbusoo bi liggéeyal sëriñ Touba ba am ngërëmam sëriñ Touba joxe ndigal ñu jox ko sëriñ Afia Bousso mu liggéeyal sëriñ Afia Bousso ba laq ngërëmam ginnaaw bi mu nekk fi uuf njaboot bi ànd ak soxna Awa Bousso ba soxna aw Bousso jóge fi lépp loo xam ne ni soxna Awa Bousso daana ko def ci njaboot bi mu tax taxawaay taxawaay bi mel noonu kon kooku tey la ñu fàttaliku ginnaaw bi nga xamee ne euh, naka jekk mosuñ ko fàtte waaye di ko fàtte ñaan ndax dañ ne bisu mag ñu baax ñi mat nay fàttaliku ndax ndaw ñu di ci roy loolu rek lañ ci jublu tey ba sëriñ Basiru woote lii tey kon ñi ngi ñaan képp koo xam ne teew na fi suñ borom def xeememteef ak euh, bëgg-bëgg yooyu ak ngërëmul sëriñ Tuubaa loo xam ne soxna Soxla ñu ngi noonu suñ borom wisaare ko ci réew mi nawet bi ñu dugg mu nekk nawetu jàmm nawet boo xam ne nii dana dana barkeel te yaatu te képp ku fi teew sa jéego yi nga xam ne moom ngay ñëwee ak yi dem suñ borom defal aaj yéen ñu ngi leen di sant bu baax yéen waa internet bi di Serigne Thierno yow nga bokk ci njaboot gi liggéey liggéey bu am solo ci réew mi ak ci yoon wi ak ci dëkk bi kon yàlla na yàlla barkeel leen ba yoggu leen fi ngeen bëgg a jàng xam naa tey bu ñu xëyee ci njàngu alxuraan mi lañ xëyee jàng alxuraan ay kaamil yu bëri fukki kaamil ak ñaar jàng nañ ko fi ndax ndigal li Serigne joxe woon mooy ndigal li ñu xam ne mooy jàng fukki kaamil ak ñaar kon bi ñu xëyee ci suba ba léegi jàng nañ fukki kaamil ak ñaar boole ko ak ak def ay salaatu ala nabi ak lu jiitu laytaayu kaamil yooyu mbokk doon jàng noonu lañ ko fas yéene yëngoo ba berne bu ngoon jotee incha allah dana am waxtaanu diine bu am solo wu fi am loo xam ne sëriñ Fadilou Bousso Thierno moom moo koy def feggoo ci ak sëriñ Abdoulaye Bousso Thierno ak mboolem kilifa yi fi teew kon daal noonu lañ ko fas yoon dew incha allah ba ginnaaw takkusaan ba waxtaan jeex ñu ñaan kenn ku ne dellu ko ñaan yàlla ñu waajal ko déwén kon incha allah bis baa ngi noonu ñaan yàlla ñu liñ ciy ñaan lépp suñ borom nangu ko ko ci yàqal laqal ñu ko fi yàq raju asalaamaaleykum